waaye dañ koo yaatal. ba képp ku sa bàmmeel bokk ci. sa bàmmeel nga jot. loolu moo tax ñu. loolu wut lim bi. waaye nag. li ko sabaglu. mooy jigéen ñi nga xamante ni. mooy ba may sàkku. di dogu. seen wërsëg. ak sama bos. ak bosam la boole. ba nga xamante sama tante lu mu yaatu yaatu. bu dee mille la. huit cent yi jigéen la. moo tax bi ngay jël di joxe rek xër ci góor ñi ba war leen a fàtte man la taxawal ndax kër kilifa gi mooy góor waaye ndëgër laay li mooy jigéen ñi moo tax tey euh, ma dagg sax sa wax mënoon naa bañ a wax ndax fi ma toog féetewu mu woon wax ndax ñi fi toog tey imaam Babacar mbay euh, dama ne tey jotaay bi li muy yaatu yaatu yëpp xam nañ ni bés bésam la waaye dafa mel ni ku ñuy sargal ci bis bi tey noonu laa ko jàngatee yàlla na ma ko yàlla nangul parce que lu ku ñu ku jar a sargal ñu ngi ci juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at ñu ngi am lii nga xam ne lépp moo koy def moom la kon yaakaar naa ni bis bi tey jekk na euh, kon damay sant suñu borom di sant ñi ñu wuy si ñëpp Baye maa liggéey Serigne sama mag sama xarifa muy Saliou Saliou ki ma booleek moom booleeg daf ma jege ci man trop muy Baye Doudou Ndiaye. muy Paa Doudou Ndiaye président. waaye ba mu ma booleek moom. dañoo tëbante ma moom tas ci Serigne Babacar. ma xam. fi mu toll. ak man fi ma toll. mu may nemmeeku ma koy nemmeeku. ma koy mu may nemmeeku. ndax sëriñ Babacar ñu. ndax di nuyu ñi fi doje ñëpp. di nuyu bàyyiwuma kenn. tey boo xoolee. Euh, suñu waajur yi nga xam ñoo doon teewe bis bi. kenn ci ñoom. wàññeeku na. wàññeeku na muy Baye sëñ Baye Mor euh, euh, sëñ Mor Papa Moon Ndiaye Papa Mor Diarra. muy Baye Mor Diarra wàññeeku na. wàññeeku boobu ba léegi. boobu ba sëñ Baye Mandoumbe Diop moo koy toogal. moo koy toogal. waaye saay bu ñuy tax. Paa Naar Ndiaye danaan toog ci wet gi Paa Naar suñu waajur la dëkk ci koñ bi ñooñ ñooy suñuy wëllëre waajur yi mais dafa yàlla dafa def ni seeni yaram dafa neexut waaye suñu borom bàyyi nañ leen fi ñuy fekke lii ñuy def dañuy ñaan rek bu déwénee mooy leen tan ak jàmm ba ñu mën a ñëw ci bërëb bi yaakaar naa ne loolu lu am solo ma bëggoon nag kaamil yi yi nga xam des na ak kursi yi nga suñu yaay yi toog fii ak suñu mag ñi mag ñi nga tànn ci ñu buñ ci tànnee ba juróom ñaar walla ci ba fukk ak benn ndax man damay lim bu ma nee juróom ñaar xam naa tax mokk tax mokk bu ma nee fukk ak benn xam naa tax mokk kooku xam naa ko. loolu xam na euh, te xëy na ñi may wax ñi dégg li may xam nañu li ma koy wax. waaye ñi ci des ñëpp da toog fi. nañu xam ni. ku ci sédduwul ci kurus. ci kaamin. ci ci ci si jaado yi. kurus a fi boo xamante ni. dañ leen koy baaxe di ci xaar nag. lim boobu ci ñoom. muy juróom-ñaari. wala fukk ak benn yi ku ko ci mën. jiital ci Fatiha def ci fukki Ixlaas ak benn julli ci Yonent bi sallallahu alayhi def ko aadiya yónnee ko suñu waajur yi nga xam ñu tëdd seen bàmmeel ak ñëpp koo xamante ne mu ngi ci àdduna bi mu ci àdduna bi tëdd ci bàmmeelam fasaale ci ñi tëdd feebar nekk ci hôpital yi ñi caabi wane ginnaaw ak ñi toog ci kër yi te mënuñoo jóg yàlla teggil leen nattu yi yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm jërëjëf wasalaam Thank you.